li liñ bëgg mooy dëkk bi amélioré wu dem ca kanam suqale ko naataange dugg ci dëkk bi xale yi am liggéey jigéen ñu financé leen troisième âge yi ñu toppatoo leen ilimaan yeeg daara yi ñu toppatoo leen di leen dimbale bañ a nekk fële di xas daara yi nit boo ko waree dimbal dimbale ko war a wëlbati ko di ko xas li tax ma wax loolu mooy man produit wu daara laa ci daara laa jóge aw ma complexe ci loolu génnuma ci ay université génnuma ci ay lycée génnuma ci ay euh, collège génnewuma Sorbonne ci daara la génnee ci université bu ñuy wax daara la génnee kon foog ma waxaaleel daara seen soxla ku dem di yalwaan da nga ñàkk pexe soo amoon pexe doo taxaw naan laa la birana kon état bi politique bi mu war a def ci éducation liñ naan nangam ci budget def nañ ko ci éducation xam nga xaw ma nangam pour cent mais ban éducation mooy éducation bu français bi rek budget bi suñu ko wootee pour ministère de euh, l'enseignement supérieur wala de l'éducation lolo day yam rek ci njangum nasaraan te ñun dañoo bëgg budget bobu ñuy woté ensemble national pour ministre bi yor walu éducation dañoo bëgg ñu génneel ci walam wa dara jox leen ko ndax njangum alcorane du jang ndax français rek moy jang te nak nitu dara limuy liggé ci société bi warna tax ñu béral ko wàllam ku juddu kan mo lay jox tur iliman moy ñew jox la tur te iliman produit wu dara la kuy def examen da ngay dem ci daa ci borom xam-xam bi mu ñaanal la soo demut tam sa ay dina dem ñaandu ci ci borom xam-xam bi te borom xam-xam boobu ci daara la jóge beneen bi ci tegu ku dee kan mooy ñëw ku dee ministre du ñëw DG du ñëw député du ñëw ki génn ci daara ji la ñuy woo mu wéet teg niiw ba niiw boobu kenn xamul feebar ba ko reyoon feebar bi ko rey dafay wàlle am du wàllaate ilimaan ngay oo mu jël risque dugg ci biir morgo bi sang ko sans gant jullee la ko robal la ko ñaanal la ko kuy taxawee soci kuy taxawee lu am solo ci société bi war waruñ koo jox wallam ci réew ñun li ñu yéene daal mooy kaay jàngal ju kaamil sama yaay da génn àddina suñ pare ñu joxe leen cinquante mille ngeen taxaw ci bopp koñ bi di ko séddoo ku ne am trois mille cinq cent ah ñun sëriñ ay trois mille cinq cent ak deux mille vingt cinq loolu la jabar am am ay jabar am ay doom dëkk ci réew mi suñ la gisee lu baax sax ñu ne sëriñ bi fu mu jëlee lii maanaam sëriñ warta am dara daal. kuy bëri war nga am oto bu rafet war nga am kër gu rafet footballeur war na am oto bu rafet war naa am kër gu rafet politicien war na am kër gu rafet war na am oto rafet waaye sëriñ moom warta am loolo ay yëre yu xotteeku fu mu taxaw ñu naan ay ndeysaan ku sol sa yëre ba mu ràpp sarax ko ñun loolu la ñu yéene ci réew mi loolu lañ bëgg mu jeex président de la république Macky Sall la wax vous man Ibrahima Soxna laaj leen ko ba ma tàmbalee di ko jàppale sëriñ yu bëri fii ci Sénégal jàppale wuñ ko 2001 la yàlla booleeg moom ñu jaxasoo lépp lu ma mën di ko jàppale def naa ko te moom xam na ko ma ne yéen journaliste yi xamu leen loolu waaye président xam na ne man dama koy jàppale. comme Moussa teg Fatick jàppale nañu ko ngir président de la république waaye dëkk bi Fatick ba léegi li wax ne dafay manqué yéen mun ngeen koo seede. man ñetti mbir laa gis ñi fi nekk ñu tuddoon ne dañ koy def te gisuma ñu indigéré ko ba léegi benn bi lañ indigéré te gisuma produit bu fa génn man amuma lu may jaral may sosal nit parce que yaakaaruma ko dul yàlla duma ay politicien boo duma politicien bàyyi waxal politicien lu ñaaw pour ñu wàccee ñu yàqal ko suma yoon newut ci loolu damay wax dëgg dama ne ñi fi ne gis naa ñetti mbir yuñ wax ne dañ ko fi def ñaar yi demul fenn benn bi indigéré nañ ko gisuñu produit bu fa génn mooy lee yoonu fuuñu ñu tëddi woon ko ak ceka sinig kan moo ci jël benn cek yóbbu ci kawam kan moo ci jënd benn cek ci usine ba yóbbu sakar pour tam xarit wala pour samedi soir ma ne bi ñu koy bi ñu teg première euh, pierre bi fi ma fekk ane ceka sinig yi ñoom ñoo ko tuddoon ne dañuy sos société bu ñu tuddee ak ceka sinig ñu def premier pierre bi ba léegi gisuñu ay cek cek yi ñu gis daal mooy ñoom jënd nañ ay cek lekk ba niroog ay cek pour ñoom ñoom moom jëndal nañ seen bopp ay cek di lekk ba niroog cek mais a cika sinig moom doxul cek xoox den moom a jega ndax a cek a sinig jegee beneen bi mooy usine biñ def ci yooni Foundiougne ñu ne usine yi mbiskit la dañoo def premier pierre bi ñu ne xawma ma man dem na ca bañu def premier pierre bi ba legi xexaguma ci doomam biscuit biscuit mi bimu ñe ñaar yoon mu jamo affaire bi yaqku ña ca doon liggey di jël saret tribunal lañ mujjé isin ba demul fen mbam ye ya ñoo fay daayira Sa yooyu dem fu ñu gis mbam ye ya tok fa di daayira di riño lima ma wax amna na wala amut man sosaluma ken ñooñu ko dig Euh, samp premier pierre yi ñoom ñi fi ne te cekke si ni gisuñ ko isunu mbiskit mi gisuñ ko te ñoo waxoon ne dañ koy def pour jeunesse si Fatick liggéey te loolu gisuñ ci dara dama ne dëgg la wala du dëgg ñetteel bi mooy usine bii ñu def fii ci digg dëkk bi tuddee ko usine meew fi station sunu baay njagawaat di nekkoon ci gaaras bi motul sax sept mètres carré nga ne da ngay def usine meew président ñëw fi ñu nax ko def fa ay bande ñu jaar fan ay ini ne day inigiré ma ne ah, vous les journalistes nañ ànd dem ci usine bi ndax di ngeen gis machine yuy riir wala meew mu ñuy macc wala meew mu ñuy naan dem leen ndax di ngeen gis ci usine bi mu fonctionné man li may wax ay fee la ma ne ma ne li may wax dëgg la wala du dëgg usine meew bi ñu wax fii ba au président ñu mu indigiré ko dañoo nax président usine yi meew new fi usine bi tëj na kenn naanu fi meew tali Fatick yi baaxul marché bi cantine yi boo fa toogee munoo tàllal sa tànk cantine marché yi dara baaxu ci waaye nañu wax dëgg Kaniwo yaa ngi nii dara baaxu ci ma ne ku bañ ñu wax la bul nekk ci alali mbooloo mairie bi de la ville de Fatick la mais du de la ville de quelqu'un mairie de la ville de Fatik. de la ville de Fatik, c'est pour les fatigois. et les fatigois, mais coule de la ville de Kousantini ou la wala si tu man li may wax mooy ma si wax ma sa yoon man président dama ko yàgg jàppale ba fii moom lay jàppale ci sama ñaan ak samay xalaat ak ay jël nit ñu ko mën a jàppale sax ma ma di leen yóbbu ci président ñi ma sos loolu te président xam na ko waaye dama ne suñ jàppale président ba mu nekk président de la république sañu ñoo seet ki baax ci suñ dëkk ñu ànd ak moom mais président mun ta nekk munatul a nekk abadan maire de la ville de Fatick ñaanul yàlla doon président jóge fa ñëwaat nekkaat maire de la ville de Fatick kon de la ville de Fatick daf koy jox Fatick waay président nag maay déclaré fii man tam li may déclaré je déclare solennellement carrément normalement définitivement billahi man Ibrahima Soxna du ma jàppale mukk meer bi fi nekkoon maire bi fi nekk nii duma ko jàppale mukk buñ ko fi tegaatee du ma ko jàppale man Macky Sall man Ibrahima Soxna maa la wax lii déglu ma déglu ma yow si tool wax gu ma sa wax man sama wax laa wax lii bokkut ak sa wax waxal sa wax waxi jàmbur du wax yow yow waxoo lii man maay wax alma musuwaar dama ne waxu sitoor laa wax du dégg ngeen waxi sitoor dégg ngeen waxi sitoor niroowut ak suñu wax sitoor li mu wax wax na ko man sama wax laa wax man discipline parti tënkuma puisque bokkuma ci parti man ci parti Sayyiduna Muhammad laa bokk Macky Sall li ma koy jàppale xam na ko du ma ko wax fii Fatick waa laa Fatick laa juddu judduwuma ci beneen dëkk ut fii li ñuy tuddee jugement man fii la ma sama baay juddoo boo demee ci mairie bi tapé machine bi Ibrahima Soxna day génn waaw bu ma juddee ci dëkk yaroo ci dëkk màggee ci dëkk aw ma droit wax ci dëkk bi. te man man du ma footballeur du ma musicien la waaye ci religieux ba ma ne ci religion ba ma ne ñàkkuma fa fayda te duma ma fa remplaçant équipe bu sëriñ si ci Fatick bi bu ma nekkul numéro 9 bi je suis numéro 10 ki mar les wala les bit wala du noonu Sitor waxagul loola man sama wax laay wax door a tontu Sitor jataay bi jeex Macky Sall moo ñu waxoon ñu jàppale ko ci li mu bëgg ci Fatick kooku mën na fukki fukki at ñaar te li ñu ci naqari moo gën li ñu ci neex wax naa ñetti usines yi lu ci dox nañ ma tontu ñoo ko waxoon ak yeneen ak yeneen waaye man Ibrahima Soxna yow Macky Sall man mii de sa xarit nga xam li ma booleeg yow ci occasion bi ma am tey maa lay xamal ne actuel maire bi nekk fii ci Fatick man Ibrahima Soxna boo ko fi tegaatee duma ma ko soutenir samay taalibe duñ ko soutenir sama njaboot duñ ko soutenir jalal nañu nag ñu toog suñu kër bu wote jotee ñu def vot sanction wala ñu bañ a wote ji barki Cheikhou Tidiane du ko jàppale. te jarul nga ma koy ñaan ndax boo ma ko ñaanee yow Macky Sall duma la ko nangul li tax duma la ko nangul maa ko xam te boo ma ko laajee ma wax la ko dama li tax dootuma ko jàppale soo ko buggee xam Macky Sall laaj ma ko soo ma ko laajee avec beaucoup de respect dinaa la ko wax mais soo ma ko laajul duma la ko wax dootuma ko dootuma ko jàppale ci politique mukk ci àddina barki Cheikhou tiijaan giñ naa ko ba noppi kenn duma ko ñaan ma nangu leneen li ci tegu nag man Ibrahima Soxna fan yu néew man ak samay taalibe man ak samay am di jàmm man ak mouvement bi nekk ci sama keppaar te Moussa Djibi Ndong jiite ko la nouvelle vision pour l'émergence de fatik fan yi ci kanam ñu def ndaje mu rëy mu mag mag a mag a mag gannaaw am na kuñ wax ne duñ ko jàppale ñi ci des yëpp war a doon ay candidat nañ am yaakaar man kenn rek laa dul jàppale waaye ñi ci des ku dul moom mën naa laa jàppale waaye nag am na ku ma tànn man Ibrahima Soxna man am na ku ma tànn ba pare te li tax ma tànn ko xam naa ne moom la te xam naa it ne moom lay doon xaw ma dégg ngeen xaw ma déggu leen de yéen de ay nopp ngeen yor te noppu moom noppu moom du sonn làmmiñ sonn dama ne waxu leen may wax am na ku ma tànn te li tax ma tànn ko xam naa ne moom lay doon te moom la wax laa wax de wax ci biir wax kooka lay jàppale duma ko nëbb nag man fu ma ne ñëpp dañ koy xam fu ma nekkul kenn du ko xam man du ma junj di ay foog naa defe naa déedéet xar ko ci digg bi rek pour journaliste ngeen am lu leer jox naa rendez-vous dans quelques semaines incha man Ibrahima Soxna nee naa amna am naa ko ma tànn ba noppi ki ma tànn danaa ko oo ba mu ma yëkkati loxoom ne ko yaay sama candidat Sénégal yëpp xam ko te kooka moom lay doon. ndax ñi fi nekkoon prise bi ma roofoon ci ñoom maa moom te ñoo ñëwoon ne ma roofal ma ma roofaleen ba ca digg yax ba damay rocci ba mu ba mu jeex tàkk ma roof ko ci ki ma neex te wallahi wallahi buñ seetaanee vidéo yi bi dinañ xam ne wax nañ dëgg ndax maa leen waxoon ne bu ngeen nekkul maire délégation spéciale mooy am kenn du toog ci mairie bi ku dul yow ku dul xam nañ ko it mane ne secret booba dama koy rocci roof ko ci ki may àndal te moo fiy nde léegi nag Sitor nduur maa ngi lay gërëm di la sant di bég ci sa jataay bii sama mag ji sama xarit bi sama so sama soppe bi xaaral ma akolaat la mu ngoog barakallah léegi Sitor Ndour mii wax na li mu wax dem na ba ne ñu ngi déglu lu parti bi disi bi duñ ci génn waaye boobaa dina am lu ñu waaye man yaakaar naa li wax leer na de. leer na wala leerul. léegi nag journaliste yi euh, juma koor Sitor mii su fekkee ne engagé nga déterminé gëm. te doo ñu wor doo ñu wuruj te doo wor ñi nga àndal doo dem ba yàgg dëpp ya ëpp chance ci keneen ku fi nekkut wasalaamu aleykum